xëy na déjà di di di fàttali ni fondation Sococim mo permettre tey échange yi ci weer go xam dañ ko jagleel jigéen ñi muy mois de mars euh ñu leen di sante ci lolu ba pare di fàttali aussi que euh, ñu na góor yi ben lañu ci waxtaan ak ci sotante xalaat pour que société sénégalaise euh gëna gis boppam ci droit yi nga xam mom lañu amel jigéen yi té ñu war leen ko war leen ko delloo ndax mëno nek ci ci sey di jur ay dom Euh, di di xëy di gontu comme góor di am aussi euh, loo loo tamit loo xamante ni moom ngay ut euh, ci réussite bu say doom ak sa bopp sax ba pare ñu la koy ñu la koy xañ parce que je pense que góor gi aussi dafay war a fàttali benn affaire c'est que société moom tant que jigéen mu nga ci nekk si jàmm Moi ci boppam ngay ngay tabax jàmmam goor bi en tant que tel parce que je pense que mënuñu mënuñu euh, nek ci société bo xamanteni dañuy wax ni goor yi ñoo mom li yëpp jigéen yi ñoo mom li rek touti ba par li as tuut li ñu mom par ñu ñukoy nang wacc sen loxo mais je pense que lool yëpp tamit waxtaan mo koy indi defena du xiro du ngaayo du ku ne wane sa doole moment ba nga ci toll c'est juste que ñu jéem manko jéem gëna waxtaan gëna diso suñu biir gëna topato aussi éducation xalé yi parce que góor yu bari dañu démissioné tay ci éducation xalé ba paré bëgg fekk ci ay doom lo xamné xeyna xëy defuñu ko ci ca njëlbeen et je pense que famille góor ak jigéen ñoo war a ci même temps bi aussi jéem taxawu xalé yi mais mun leen disparaître journée bi yépp fa yi nekk ci kër yi ba paré ñu reproché jigen ni ni ak ni ngeen di éduquer xalé yi ba paré bañ ñu ko Sénégal nañu euh liggéeyu ndey moy barké doom kon aussi buñ ci tolé tay ba liggéey soti nañu nangul barké yoy tamit sen yaay parce que ça veut dire fekk nañ ko fi xaar nañ ko fi mais je pense que simplement il faut que ñu délo ci xel yi man je pense que xex baaxul ci dara tey gis nga Sénégal jàmb ji ñu fi am parce que xol yee manko xel yi ñoo ànd donc tey bu ñu defee tamit loolu ci kër yi defe naa dafay gën a neex et puis ku nekk rek dina si gis ba pare ñu gën a jàppalante rek te fi mu nekk ñun ñëpp li ñu fi soxal mooy que ku nekk gis sa bopp ci famille bi ngay créer et puis aussi sa doom yi tekki par rapport ak ñàkk bi nga fa bàyyi muy ci sëy bi muy ci ànd bi ak aussi ku góor ki ngeen ko séqal